à CTV, la chaîne des patriotes. moo xam ndox mi nga xam ne dañ koy utiliser di ko def ci égout yi moo xam assainissement loolu yëpp ay jafe-jafe la loo xam ne dañ koy dund ci senegal rawatina nag fii nga xam ne mooy golfe sud ndax ñun kat ba ñu toogee ba léegi bu ñu xoolee euh, li nga xam ne moom la ñu yi di joytu li ci ëpp mbirum ndox la ak mbirum canalisation ak mbirum égout ak ak ak fosse ak yoonu ndox yi nga xam ne ah buñ ci waxut fii ñetti weer bu ñu jubloo ci taw mi danañ at ay jafe-jafe yi nga xam ne moom lañ doon dund kon nag loolu moo tax ñun ñu xalaat ni semaine bii nga xam ne ñu ngi koy waxtaanee mbirum ndox ah autorité yi di ci waxtaan rafet na aussi ñu ñëw ci suñu ay population yi nga xam ne ñoo koy dund ah, ñuy dund métit yooyu liñ fi wax yëpp ay métit la ndax yeewu 3 heures du pour am ndox une heure de temps nga root journée bi yëpp doo am ndox ak jafe-jafe yi nga xam ne mën na ko jur ci wàllum wér-gu-yaram ak coono gi nga xam ne nit ñi ñu ngi koy dundu te lenn teguñu ko lu dul ndox fii ci golfe sud mu am quartier yu bari yoo xam ne desserviruñ leen en eau maanaam seen robine du tijji wala robinet yi su tujjee xaaja guddi lay tijji wala bu ubbee xaaja guddi ndox mi ciy génn ñuul na kukk ba poser tey ay problème mu santé publique kon loolu rafet na bu ñu nekkee ci semaine bi nga xam ne ah àdduna wër këpp mu ngi fii ci Sénégal ñu wax leen ni ñun kat ñi nga xam ne ñu ngi dëkk ci Golfe Sud ñu ngi koy jooytu donc tey dañu doon amal ay rencontre ak ay visites sur les sites pour xool li nga xam ne mooy problème bi li nekk suñu ginnaaw nag c'est un château d'eau ñu koy rafetlu bu baax ndax nag dafa am ñu ko dox wax ko ba mu am muy suñu papa yi nga xam ne ñoo fi toog ñoom ñi nga xam ne pendant plus de cinquante ans ñu ngi dëkk ci commune bi di dund ay jafe-jafe dox ko wax ko joytu ko ànd feek maire bi nga xam ne moo fi jógee muy suñu yaay ay Sow Diawara ba lii am fi waaye nag li ñuy wax mooy lu mel nii bu amee ci sa kër balaa dara di xew war ngaa wax ba ñu xam ne lii woon dafa war a woon ni ndax nag château d'eau dafa nekkoon fii ci golf sud te joxul ndox ñun ñi nga xam ne ñoo dëkk ci golfe sud dafa daan jox ndox ñeneen ñu nekk ci yeneen quartier ca ndakaaru ñuy wax nag château d'eau bu bees bii nga xam ne ñu ngi koy tabax balaa ñu cee branché kenn nañ ñu ci branché ñun ñi nga xam ne ñoo dëkk ci golfe sud ndax tey jéeye bu amoon ci château d'eau bii euh, bu château d'eau bi explosé woon ba ndox mi ball balaa moo sonal kenn ñun ñii dëkk ci château si si si si si suufu château d'eau bi lay jëkk a sonal kon nag bu ñuy joxe ndox balaa ñu cee jox kenn ñun dañuy taxaw ne kat ñun bëgg nañ ñu nekk les premiers servis ndax ñun ñoo gën a jege kon gën a yey ñuy wax rek autorités yi les questions yi nga xam ne mooy mbirum ndox amaana du suñu responsabilité ñun ñi nga xam ne ñun la ñu dénk mbirum mairie waaye population yi bu buñ koy joytu si ñun la ñuy ñëw kon nag buñ koy joytu dañ cee war a ànd ak ñoom ànd ak ñoom wax ci li nga xam ne suñu cër la porté plaidoyer bi nga xam ne ñi ko war a dégg ñu ngi ci monde bi yëpp te tey ñu ngi fii ci Sénégal di leen wax rek ni ñu wëlbati ko xool commune de Golf Sud ndax fii am nañ fi ay jafe-jafe ndox am nañ fi ay jafe-jafe euh, assainissement ndax suñu quartier yi dafa doon quartier yoo xam ne bañ koy tabax euh, quartier yoo xam ne population bi dayul woon nii waaye jamono dafa dox ba Golf Sud nekk commune bu mag nit ñi macha allah yokku kër yi yokku ba nga xam ne tey capacité bi nga xam ne moom la canalisation yi daan jël dafa dafa dépassé kon dañu bëgg tey dans la commune de Golf Sud ñu def ay investissement yu wóor ay investissement yu adapté yi nga xam ne dina permettre ñu yokk capacité canalisation yi nga xam ne moo fi am aussi parce que nag bu population di yokk infrastructure yi dafa war a yokk ànd ak moom mu nekk ay compétence yoo xam ne état central moo ko yore ñun en tant que mairie yoruñu mbirum assainissement li nga xam ne mooy ouvrage maanaam yokk ay tuyaux wala ay def ay branchement ñun dañu jox dénkuñu pour ñu entretenir te foofu la suñu doole yem foofu la suñu kattan yem foofu la suñu compétence yem kon dañuy woo population yi ñu xam ni problème bu am solo la waaye lépp liñ ci war a dox comme jéego liñ ci war a wax danañ ko wax te loolu la ñuy tàmbali tey muy vraiment lancer un appel aux autorités pour ñu xam ne fii ci commune de Golf Sud rawatina ci quartier yi nga xam ne dafa nekk ay quartiers yu sensible parcelle par exemple unité 1 ba 6 ñu koy woowee parcelle assainies man ma ciy wax rek c'est des parcelles qui sont mal assainies ou qui sont pas du tout assainies donc dañuy ñaan di wax ni ñun yeyoon nañu ndimbal boobu nga xam ne moom la ñuy jox yeneen quartier yi balaa ñu ko commencé feneen ñu wëlbati ko xool ñu ñun waa Golf Sud prévoir ñu ci investissement yu mag yi nga xam ne dañ koy def ci assainissement bi prévoir ñu aussi ci investissement yi nga xam ne dañ koy def pour yokk capacité ndox mi ba nga xam ne danañ fi am ndox mu sell danañ fi am ndox mu mu mate danañ fi am aussi ndox moo xam ne danañ ñëw 24 heures sur 24 loolu la ñuy ñaan di wax rek ni lii euh, vraiment ñu ngi koy rafetlu ndax population yi bu ñu jógee di def dara dañ ci war a ànd ndax ñun ñoo leen fi toogal nekk seen baat nekk seen ay ndaw kon tey activité bi nga xam ne amal nañ ko fi ñu ngi koy ñu ngi koy rafetlu bu baax di ci ànd ak ñoom di leen ci gunge di dina ngeen ko porté ba fépp fu ñu ko war a porté fi may daaneelee rek mooy wax ni facture yi cher na lool. facture d' yi cher na te du problème mu Golf Sud problème mu Sénégal yëpp la donc ñuy wax rek tamit nañ ñu gestu te xam ne euh, la la la la facture électricité ak facture ndox su ñëwee. dafay indi ay jafe-jafe yu bari si budget wu ménage yi kon nag nañu gestu aussi xool nan la ñuy def ba gën a woyofal facture yi nga xam ne population yi ñu ngi koy jooy mu doon problème boo xam ne du problème mu Golf Sud problème mu Sénégal yëpp la donc ñuy profiter aussi si occasion bi di lancer un appel à Sen'Eau pour ñu xoolaat aussi nan lañuy def ba mën a oyofal euh, li nga xam ne mooy tarification yi pour population yi mën cee gis seen bopp ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci teewaay bi di wax rek nag ndox moom mooy source de vie mais fii ci golfe sud ndox source d'ennui et de problème la wasalaam. ASID TV, la chaîne des patriotes.